topp 24actu point com ni ñu leen koy defalee boobaak léegi di ànd ak yéen ci euh, màggal gi rawatin nag màggalu ko Daaru Muxti euh, tey ji nag ñu ngi ci kër Serigne Dan Mbacke euh, lépp loo xam ne rek jëm na ci màggal gi ak bis bi nga xam ne noonu la ñu koy war a dundalee moom Serigne Modou Awa Balla moom Mame Thierno ñu ngi so toog nag ak Soxna Awa Mbacke ñu fas yéene. 24actu point point com maa ngi leen nuyu baax maa ngi tudd Soxna Awa Balla Mbacke. waaw di doom ci Cheikh Mahmadan Mbacke euh, fi ngeen ñëw tey ji ci màggal gi waaw. màggaluk Daaru Muxti lan nga ñu ci mën a wax laata ñuy tàmbali daal. waaw màggal Daaru Muxti moom retrouvaille lay célébré bi sëriñ bi jógee ci géej gi war taseeg maam Thierno muy bës boo xam dañ koy màggal di ñaanal boroom bës bi di di ko ci fàttaliku ci ay jukkoom di ci indi ay njàngale di ci wone ab liggéeyam bu rafet waaw di ci dajale it mbokk taalibe yi. ñu ànd defandoo ko waaw. Sëñ Mbacke naka ngeen dundalee bis bi. waaw màggal gi moom comme ni nga ko gisee nii rek jamonoy Covid bi la donc euh, daaw sax daanaka mën nañ ne màggal amutoo ndax boobu ñu ngi tëj diggante yoon yi ren nag gis nga euh, ku sori woon rek te dëkk ci dëkk bi rek jege si nga ni ñu ko màggalee nag mooy wàcce ay wàcce alxuraan jàng xasida bernde. tamit waxtaan def ay waxtaan euh, ci borom daaru ay panel def ay ay plateau def ay direct ngir xamle kan mooy borom daaru ndax liggéey bi dëgg-dëgg ci màggal gi loolu la waaw. bis mel nii ñu fàttaliku borom bis bi borom daaru euh, lan lañ mën a jàng ci moom rawatina ak ndaw ñi. waaw borom daaru moom buñ ko waxee rek ginnaaw doonee rak ci Serigne Touba buñ ko waxee rek tubaab bi dañ naan frère disciple. maanaam mooy koo xam ne dañ moo njëkk a sukk jee jóg ci baatin maanaam koy xam ne moo moo njëkk a ci moom donc lu ñuy gën a jàng ci moom mooy dévouement bi mu amoon ak amour bi amoon ci Serigne Touba nga xam ne lu ko tegoo rek teg na ko waykat bi nee na Serigne Touba njëkk ci moom mujj ci moom léppam Serigne la donc loolu euh, lañ mën a jàpp ci moom mu nekkoon nit ku bëgg liggéey nga xam ne moom dañ ne Euh, liggéey da ko élevé woon au de culte maanaam njaamu yàlla la woon ci moom efficacité am taxoon na ba jamono yi euh, Sénégal manqué dund moom moo leen ko joxoon mu nekkoon nit nit ku bëri ay jukko yu rafet muy ku am jom ku am fulla ku am fayda ba léegi nii sax boo ne daaru laa dëkk ñu ni la kon de yow nit ku am fulla nga ndax loolu la loolu la Thierno wane woon loolu la doon dund liñ mën a jàng ci moom bëri na ndax maam Thierno patrimoine la maam Thierno patrimoine la tey jii waroon nañ koo jàngale ci école yi ni ñuy jàngalee ay Karl Marx wala Cheikh Anta ndax def na fi liggéey bu ni toll ci ginnaaw Serigne Touba ginnaaw moom moo doonoon bras droit am moo doon yeggal bu sëñ bi sumbee moo doon sumbandoog moom ndax wax nañ am na ñu wax ne ko boo doon boo mooy am aaronam bu doon Seydina Mohamed mooy am omaram ba Aliyoom kon xam nga kooku def na liggéey bu rafet ci yoonu ci yoonu lislaam ba Serigne Touba di dem ci géej gi moom la dénkoon te rek wax naa ko ci benn plateau ma ne leen li gën a jafe léegi mooy partenariat mooy nit koo xamante ne da ngay da ngay seq ak nit am liggéey nga téye ko comme sa wàllu bopp àggoon na ci bi njabootu sëñ Touba gi tawatee mu ne kat ginnaaw sëñ bi damaa dénk te moom ñëwagul bu njabootam gi naree dem na soxna Fatou sa Diop mii di sama waajur dem wala moom ma Awa Balla mi nga xam moom laa gisagul ci bant kon xam nga kooku amoon na maanaam mbëggeel ak cofeel ak engagement bu rëy ci borom Touba boo xamante ne ku ko ku ko ku ko fekkewutoon nit dégg nga ko ba tàyyi ndax ba seen bi seen waajur noppaloo sax dañ ne borom Touba ne man kaamil bi ak Thierno man moom kaamil bi ak kon maam na foofu la nekkoon bu ñuy wax ci moom suba ba jant soo du ñëw jeex dëkk bii di Darou Mousty mel na ni dëkk bu am histoire la Darou Mousty lan nga ci mën a wax. waaw Darou mosi moom Darou Mousty moom maam Thierno ko sanc ci ndigalul borom Touba gis nga ko dëkk bi euh, nit ñi ñu ngi yëngu ci lu bëri Darou euh, nit ñi ci li ñuy gën a yëngutu mën naa ne commerce la mhm, commerce la ëpp lu ñu yëngutu euh, doomu dëkk bi tamit ñu ci bëri jàng nañ xam-xam xam-xamu diine xam-xamu nasaraan. Eh, bëri na tamit ay kilifa yoo xamante ne fii la ñu fekk baax waaw kilifa yu àdduna bi yëpp xam yoo xam ne fii lañu fekk baax donc doomu dëkk bi jàng xam-xam jàng diine di yëngu ci lu bari tey jii nii ñu tabaxal ñu taxawal projet yu bëri eh, daaru yaakaar naa yow war nga ci xam dara ci actualité eh, ministre yu bari jóge nañ fi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne fii lañ fekk baax ci Darou Mouhty donc Darou Mouhty dëkk bu maam Thierno la bu ko sancee ba léegi nit ñi génération par génération ku nekk sa devoir yaa ngi ci yaa ngi ciy bay sa waar daal ngeen laa ñoo jeexal bëggoon nañ nga laal ñu tuuti ci euh, maam Thierno ak diggante bi ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon Serigne Touba rawatina ak xam ne ñoom ñooy buuri àdduna yi. waaw moom moom waxoon nañ ne xam nga yenn saa nga dégg ñu ne doon nañ ko woowee gaynde ak Bàmba ndax Serigne bi wóolu woon na ko ba di ko yónni yu bëri. ci digganteem ak surtout colonialiste yi ba ki dem maa ngi lire benn kii boo xam ne dañ ne colonialiste dañ ko bëggoon a décerner prix boo xam ne maam Thierno ci jëmmi boppam moo ko bañoon jamono yooyu moom li mu doon bañ mooy collaborer ak ñoom waaw moom ci jamono jooju loolu la doon bañ te moom it xeex bu sëriñ tubaa sumbu rek jàppoon na ne moo ko ci war a moo ko ci war a ànd ak moom moom moo taxoon jamono jooju Serigne Touba yónni na ko fu bari te gisoo dañ naan la ci misaal jëm moom jë rëyul ga guddul waaye gis nga fidwa na mu tool donc kooku moom digganteeg ñoom moom def na ci diggante moom colonialiste yi daal xam naa ne daal teg na leen kii daal ba bi sëñ bi nekku fee bi sëñ bi nekkee ci géej gi sax fexe na ba di doxalanteeg ñoom ci noo xamante ne daal ni ko sëñ bi gënoon a bëggee. xam naa ngir jeexal ban soññee ngay jox euh, ndaw ñeek mbokki taalibe yëpp. waa ndaw ñi moom xanaa ñu gën a roy ci maam Thierno rek ndax ñun jéggaane wuñ waaw jéggaane wuñ bu dee xam-xam maam Thierno dafa jàng neen sëñ Tuubaa def moo def ci moom lépp xam-xam ba pare yabal ko ci ñeneen ku ci mel ne sëñ xaali ma jaxate kala nga xam ne c'est maam Thierno jaar na fa jàngi expérience moom da daan wax ne am njàng le savoir n'est pas seulement livresque mooy njàng yëmul rek ci livre lu théorie kese day pratiquer maanaam booy jàng dangay dem ba mu yàgg nga soxla expérience te maam Thierno doonoon na ku teel am responsabilité loolu tamit jeunes yi roy ji am responsabilité bëgg seen dëkk bëgg seen réew am tamit cofeel ci seen jiit am tamit cofeel ci ki nga xam ne mooy seen guide spirituel loolu moom mën nañ ko cee jànge bu baax a baax di ci di soññ nit ñi ñu gën a góorgóorlu ci xam ko ak xamle ko waaw di seen di leen sant tamit di rafetlu rek ñëw bi ak bés bi ak euh, xëy na circonstances yi moo ko doxalee nii mais rafetlu nañ bu baax euh, di ñaan rek maam Thierno Faye ñun ñëpp waaw. kon soxna Awa Mbacke ci kàddu yu am solo yi nga xam ne ku nekk mën nga cee jànge lu bari rawatina nag ci màggalu ko daaru moxti gi eh, dégg ngeen li nga xam ne rek wax na ko ci maam Thierno borom daaru eh, mu nekk kàddu yu am solo ñu ngi leen di eh, sant bu baax di leen gërëm xam naa di leen jox daje incha allahu rabbi ngir yeneen plateau yi nga xam ne fas yéene nañu ko amal waaye ngir li nga xam ne rek moom mooy ko ci màggalu daaru moxti ñu ànd ci yéen ñu ngi leen sant baax di leen gërëm